assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mi na def ça va ça bien naka waa Touba mbaa ñu ngi ci jàmm e, man la Kémo Silla Sénégal Casamance région Kolda département département de Vélingara village de Kabendou mais actuellement maa ngi France wala man euh, barki démb e, dama wàcc liggéey ñibbi ci si kër gi Eh, nii la sango fay sama eh, julli ñu ñu ma raw wattu yi ñu ma raw fay lépp ba pare añ après tëdd balaa ma tëdd nag tout le temps balaa may tëdd damay joggu souvent ma julli ñaari ñaari waxtu naafile ñaari waxtu bu ma ko jullee après ci lay tëdd après bu ma tëdd nag ma ngënd depuis ma ngënd eh, yàlla wonal na ma campagne électorale bi buy ñëw ni deux mille vingt quatre dañu defu voté ba pare Ousmane Sonko moo gagné Ousmane Sonko dafa gagné après euh, jàng bi fête bi ko maanaam fête bi mooy jàng bi ak sarax ak jàngal ko yaas ñaanal ko ñëpp Tuuba lañ ko defee léegi nag après bu mu demee Touba ñun yëpp ñu ngi foofu mbooloo askan askan Sénégal yëpp ñu ngi ci ginnaaw Ousmane Sonko Touba Touba dafa feesi del surtout kër gi lu ñu def di ñaan noonu kër gi foofu dafa feesi del comprend nga léegi après buntu bi buntu kër gi bi mel ni comme xaw aw grillage la quoi léegi ñoom Macky Sall nguuru Macky Sall ak Macky Sall sax moo nekkee ci kanam dañoo ñëw fekke ñu ci kër gi foofu mais mënuñu dugg fekke dañuy fekke euh, dañu dañu toj euh, porte bu euh, bu mag bi bunt bunt bu mag bi dañ ko toj léegi ñi taxaw ci buntu kër gi mais nu ñu ñëwee comme seen yaay nu ñu leen juree noonu la ñuy ñëwee après ñu ngi yoro flèche ko xam nga comme ñu suñu suñu làkki jaaxanke dañu ne tambo tambo xam nga ay fu njëkk yi xeexkat yi kii la sallallahu alayhi wa sallam kii bi nu ñuy yoroon ni nekk di eh, di di jàpp ni comme ab banta mais weñ moo nekke ci boppam di di eh, sandi ni di bon eh, nit yi loolu la ñuy yoro léegi après bu ñu commencé di sandi fiw fiw fiw fiw après mbooloo bi tas ñëpp daw man ci mbooloo bi laa bokk sax léegi bu ma daw daw daw daw daw après léegi fu ma dugg pour euh, ñu bañ a laal. ma dugg ci néeg bi rek abbu néeg ñax la quoi ma fekkee Serigne tala muy tëdd ci tapis bi mu ngi jàng kaamil léegi bu ma ko fekkee mu ngi jàng kaamil mais